ci lap yi noyade yi nga xamante ni souvent dafay am ci géej gi ci jamonoy euh, vacances yi la ñoom ñu ci amal ay campagne de sensibilisation daañu ko waxtaanee li ko waral ak tamit euh, lan moo ci solution ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaanee ak kile euh, di Ibrahima Khalil Niang ñu lay nuyu di la dalal jàmm. asalaamaaleykum Kumba. Mm. maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu également auditeurs réew mi FM yëpp. Mm-hmm. di am mbégte nga dalalaat ñu ci studio bi. Mhm. te di ñaan émission bi mu nekk njëriñ pour askan bi yëpp. ñu lay remercier ci sa disponibilité ci njëlbeen dinañ la laaj club modèle moom mooy lan exactement. waaw club modèle dafa nekk euh, association boo xamante ni. Mhm. dañ ko créer depuis l'an 2007. Mhm. li taxoon club bi juddu mooy bëri na ay association yu yëngu ci wàllu développement. ci wàllu koom ci wàllu pauvreté yi ni mel mais dañu gis ni dafa bëriwul woon association yoo xamante ni dinañu promouvoir suñu ay valeur ndaxte képp ku xool rek def benn analyse di nga gis ni depuis un certain temps valeur yi dafa commencé jikko yi dafa commencé yàqu jikko yi ñu xamee woon yi nga xamante ni Sénégal Afrique moom la làmboo woon muy diggante kersa diggante jom diggante fulla fayda ak jox cër mhm. kilifa mhm. dafa commencé woon doon sooxee mhm. ñu mën ko tuddee ci tubaab incivisme moo tax ñu créé kuréel bi depuis l'an 2007 ànd seeg ndax ñu bëri ñoo xamante ni dañuy yëngatu gëm ni civisme gëm ni citoyenneté dafa bokk ci li mën a doxal Sénégal ci li mën a doxal Afrique. Hmm. boobu ba tey nag ñoo am ay activités yu bëre yoo xamante dañ dañ koy def 2007 ba léegi. Hmm. Hmm. Euh, depuis 2013 ñu commencé di def li ñuy tuddee prix du citoyen model africain. chaque année ñu jël ay kàngam ci continent bi. ci wàllu citoyenneté ci wàllu civisme ci wàllu seen jikko. ñu tabb leen ni leen ñii ay modèle nañu. ci bu loolu woyee itam te dañu bëgg tout le temps li ñuy def mu bañ a yem Sénégal. waaye Afrique bi yëpp gis ci seen bopp parce que seen Afrique ñun ñoo yem problème. waaye itam di def li ñu tuddee campagne anti-noyade bu nawet bi duggee xale yi dañuy fees ci géej gi ñu dem ci plage yi sensibiliser leen bu loolu woyee également béppum sujet d'actualité. boo xamante ni dafay naxasal jikko yi Kër Lëpp def ciy wax def ciy participer ci dynamique boobu nañu defoon benn marche. Mm-hmm. l'an 2011 pour sensibiliser xale yi ci soo su ñu doon jaay. Mhm. au niveau des boutiques ñu tuddee ko toppet. ak salañ waaw yooyu noonu yëpp gis nga voilà <laughs> yooyu yëpp ñu mhm. defoon ci ab marche bu am solo mhm. te itam bu ñu defee marche bi rek gis nañu autorités yi jëloon ay mesures yu yu yu ama am am solo donc daal club modèle ci tënk loolu moo ko tax a jóg fexe ba sénégalais bu nekk nekk ab royukaay mais mais mais club modèle euh, ñan ñoo ci nekk exactement parce que nee ngeen ñu bëri ñëw nañ ci ànd ak yéen. ñan mhm. ñan ñan ñooy ñoo constituer le club modèle. waaw mën naa ci mën naa ci mën naa ci lim quelque rek. ñoo xamante ni peut-être ñoo gën ñoo gën a fës. Mhm. ku gis Ibrahima Khalil Niang toujours di nga gis. a son côté Alioune Sène mm-hmm. muy le coordonnateur national du club modèle mm-hmm. jiite itam mouvement bu mag au niveau de la banlieue la banlieue le bon mm-hmm. moom moo koy diriger donc mu nekk itam un homme de terrain un homme de valeur ku gëm li nga xamante ni loolu la ñuy def ak ñeneen ñoo xamante ni ñoom Ibrahima Ba ñoom Galaye Diaw ñoom ñu bëri bëri bëri madame Sène suñu secrétaire secrétaire club model avant madame Sène y avait Thérèse Diagne waaye dafa nekk États-Unis léegi donc de façon bénévole au niveau du club modèle di nuyu Ousmane Jamil Ndiaye it également sonn lool ci club bi gëm ko lool am seen liggéey waaye bu ñu amee temps que ñëw liggéeyal club modèle te duñ ci xaar dara. Hmm. loolu nañuy xaar tey jii ci citoyen bu nekk mooy fexe xool li nga mën a defaral sa réew sans rien attendre wutoo ci visibilité. wutoo si lii en retour wutoo si lenn wutoo si buzz wutoo si lenn loolu dafa am am am solo mhm. liggéey sur le terrain donte bu amee benn nit boo xamante ni déglu na la soppi na jikko soppi na doxalin loolu de da lay réconforter mhm. te man il est arrivé plusieurs fois ñu ñëw ci benn koñ def benn thème parce que dañu li ñu def dañuy def ay cercle d'échange waxanteeg jeunes yi wax ci benn fléode société nga jóge ci thème boobu deux semaines trois semaines am benn ndaw bu la woo. Mm-hmm. wala am benn parent bu la woo ni dañ leen ni gërëm di leen sant. Mm-hmm. ndaxte sama doom bii kat bi mu ñëwee assister seen manifestation boobu soppi na jikko soppi na doxalin donc loolu rek da lay réconforter mm-hmm. day tax nga gën a am fit. gën a am pas-pas di continuer di sensibiliser nit ñi sur le terrain parce que ndax bu ñu waxati waxee la yàlla rek jikko yi dafa yàqu problème de de valeur problème de valeur dafa bëri tey jii da ngay seetaan léeg-léeg internet bi. Euh, mhm. parce que itam suñu mbokk journalistes yi presse bi de façon générale dañ ci am benn responsabilité. Mhm. boo xamante ni dañ ko war a assumer mhm. entièrement. da ngay gis ay vidéo yoo xamante ni kenn xamul lan la. nit ki ci wàllu ñàkk teggin. ci wàllu ñàkk orma. li fi commencé xew ci réew mi dafa doy waar lool xamatuñu kilifa xamatuñu mag. xamatuñu jigéen xamatuñu sàng sutura nit nga koy gis bu nekk ay dérive ci internet yi mhm. te le plus souvent jeunesse bi ñoo koy def waaye dafa am ay mag ay adulte yu nekk seen ginnaaw ça fait mal mhm. looloo waral ñu ne ah ñun nañu jël suñu bâton de pèlerin di wax bu ñu waxee waxee waxee waxee xëj na bokk nit yi dina duñu dégg mhm. waaye bu ñu continuer di wax Mm-hmm. amanaa mën naa am benn portion. Mm-hmm. population bi ñu bàyyi ñu xel. mais mais li ngeen di xeex ay affaire valeur dafay mm-hmm. xaw a euh, niroo comme par exemple ay Jamra lu ñuy xeex mbañ gàcc lan moo tax demoo leen adhéré ci ci ku kuréel mbañ gàcc. bon xam nga. xam nga aussi. Euh, wala wala kii bokkul. waaw non mën naa ni ñoo bokk sax parce que Mame Mactar suñu suñu mag la dañuy échanger ak moom très souvent. Mm-hmm. Mm-hmm. mais itam ñun à côté de valeur yooyu. Mm-hmm. ñuy xeex dafa am leneen loo xamante ni moom moo ci moom mooy prédominé. muy mm, lan muy civisme. civisme. un bon citoyen. yaraat sénégalais yi da am problème léegi pour dugg. ci benn koñ parce que benn camion moom moo fa taxu moo fa taxaw nee na dafay wàcce ay bagage mhm. te foog nga xaar ba mu pare soo waxanteeg moom mu xuloog yow dangay ñëw ci benn koñ am urgence ñu ni dañ ko bâche dañ pendant dix jours mhm. te amul benn waaw nit dafay yor mbalitam ñëw sànni ko ci mbedd bi ni la mbedd bi bedd mbuur la mhm. wala nga gis keneen koo xamante ni dafay tuur ndox ci mbedd dem nañu ba amatuñu ay espace vert parce que espace vert yi ñu amoon dafa am nit ñu bëri ñoo dañ koy yàq bu ñu tegee bu ñu defaree sa ay banc mhm. defar ay banc yu rafet mhm. nit ki au lieu que mu toog toogin bu normal waaye day jël fi ñu war a toog foofu lay teg tànkam mhm. donc yooyu mu nekk ay comportement yu ñuy gis ci sénégalais yi ñu koy def club modèle ndax loolu moom moo prédominé ci ligne directrice am mooy fexe fexe ba sénégalais bu nekk xam réewam war a jéem a nekk model que policier bu fi nekkee que bu fi nekkul gendarme bu fi nekkee bu fi nekkul parce que encore une fois gëm nañ ni loolu moo développé réew yu bëri tey jii boo jëlee Japon Chine et cetera lu tax tey ñu leen cité en modèle à travers le monde mhm. parce que ce sont des populations très disciplinées par exemple mi ngi am yoo xam mi ngi commencé ñëw mhm. ci bus yi mhm. da ngay gis nit ñi ñu ngi commencé ran léegi même clando yi ñi ngi commencé ran il y a dix buuxante bu metti metti la woon bien vrai que boo demee ci yenn garage toujours am na buuxante mais ñi ngi gis ni wax bi am na ci solo wax bi walla baax na ci ñun donc lii mooy suñu ligne directrice bu ñu jógee ci lii nag yeneen fléau de société yi ñu soog koo mën a mais mais mais seeni activité yi nga xamante ni club modèle da koy def euh, koppar fan lay jógee da ngeen am ay partenaires comment ça se waaw club modèle objectif am bëri na parce que fas yéene nañu fas yéene nañu club mm. modèle dem ba nekk ONG te ñi ngi ciy liggéey mm-hmm. ak ay ak partenaires xam naa dañuy bàyyi ndax ba mu ba mu sotteek jàmm incha allah ñu ñu soog cee wax bu baax mm-hmm. mais am na ñu ñu gëm mm-hmm. am na vraiment ay ay kuréel yu nekk ci Sénégal ak bitim réew ay entreprise ay personnes individuelles yoo xamante ni club modèle lu mu def rek dañ ci mais mais ñoo leen di jox koppar Ibrahima. non non amul jox koppar. jox euh, leen koppar parce que am na activité yoo xam boo koy def dafa laaj xaalis. non non jox jox koppar comme affaire citoyen modèle ça. waa voilà mais en fait jox koppar amul. jox cest à ñun club bu dee du ñu fonctionner noonu. li ñuy fonctionner ni ñuy fonctionner mooy. waaw activité bu ñuy def membres yi ñooy cotiser. ñu nekk ci club bi ñu bokk ci club bi par exemple ñun jóge nañ fi. Mhm. jóge nañ fi moo amoon euh, ñu waroon dem hydrobase. Saint-Louis parce que da foofu dafa bëri woon ay yàqu-yàqu. Mhm. ñu war a dem sensibiliser jeunes yi. club modèle moo fi jógee ay moyens boppam. Mhm. jël bus boppam dem dal fa pendant deux jours sensibiliser nit ñi dellu si. Mhm. membre bu nekk moo cotisé. parce que itam membre yi ku si nekk cadre la ci entreprise xëj na li nga mënee jël jëndee ko je sais pas téléphone wala leneen mën nga ko dugal ci citoyenneté ñun loolu la ñuy fonctionner d'abord moom mooy suñu. principe bénévolat quoi pare yéen jël seen principe de base ñun ñooy jël suñu koppa maintenant booy dem ci yenn manifestation mm. yu mel ni ki prix citoyen modèle mm. am na ñoo xamante ñi ngi ci club bi xarañ nañu lool ci wàllu marketing mën nga tëgg sa benn plan de marketing bu am solo gisi ay entreprise ñu sponsoriser la loolu mooy moom mooy doxal club modèle nga mën a def sa événement mm. parce que sponsoring moom fii nañ ko fii nañ ko fekk mais dañuy ñaan toujours également mm-hmm. entreprise yi mm. nañu accompagner la citoyenneté mm. te ñoom dañu am sax vocation RSE responsabilité sociétale de l'entreprise ni ñu gën a accompagner parce que gis nañ ni mm. sooy def yi nga xamante ni daal euh, xawul dafa bëri foo bi foo bi bu bëree daal da ngay gis sponsor yëpp dañuy mbabb dem foofu waaye lépp luy citoyenneté sociale dafay xaw a jafe sax nga décrocher benn sponsor. ça pose problème mais mais mais prix citoyen modèle boobu euh, Ibrahima foog ma laaj la critères yi naka ngeen di tànnee comment ça se exactement ba ngeen tànn ne kii mooy par exemple euh, citoyen modèle bu deux mille vingt wala deux mille vingt et un comment ça se passe bi critères yi. Euh, waaw prix citoyen modèle moom it ñi ngi ko sos. l'an 2013. Mhm. moo doon première édition bi ñu defee ko ci benn hôtel bu mag fii yàlla def. ñu def ko matin après ñu dañ koy def dîner de gala mm. mu am quatre éditions yu mag itam yu ñu def mu am ay ministres yu jóge bitim réew ñëw mm-hmm. dañ ci liggéey benn jury mm-hmm. indépendant bu tudd Génie d'Afrique mm-hmm. di nuyu bu baax euh, Cheikh Sey mi nga xamante ni moom mooy président jury boobu ni muy demee rek mooy man mën naa am sama xalaat ni ah diw mi dëkk fii de yàgg naa ko suivre yàgg naa ko topp citoyen modèle la yaakaar naa ko. Mhm. jury bi dañu naan jox ñu dossier wam. Mhm. déjà ñun sax au niveau du club ñu waxtaan ci. su ma xarit Alioune Sène souvent dañuy discuter ni ah man ni kii de gëm naa ni modèle la mu ni ma déedéet kii man yaakaaruma ko ñu waxtaan waxtaan waxtaan ñeneen ñi échangé si ñu def ay réunion yoo te ni dafay durer des fois sept heures dix de temps. Mhm. ci benn nit. si benn nit. après ñu jox jury bi jury bi validé. bu bu jury bi di validé ngeen di jël. andi teg wala da ngeen di tànn kenn. Euh, non non nit ñu bëri la. da ngeen di tànn comme euh, comme comme par exemple combien de personnes ngeen di tànn. waaw ça dépend ça peut être quinze. Mhm. selon thème bi ñuy jël rek. Mhm. ça peut être vingt ça peut être vingt cinq ça peut trente mais mhm. au début. day dem ba nekk sa cent personnes. mais ndax ñuy élaguer. di élaguer di élaguer di élaguer élaguer élaguer ba mën ci tànn un nombre bien défini. jury bi ndax moom mooy valider ci critère parce que critère bi dafa war a ànd ak thème bi. lan mooy critère waaw critère dafa war ànd ak thème bi par exemple ma ma jox la benn cas. Mhm. Euh, ñi ngi prévaroon def édition bi daaw avril l'an deux mille vingt. Mhm. mais Covid bi moo taxoon. prochaine édition bi muy sixième édition ce sera le samedi treize novembre incha allah. Mhm. au théâtre national Daniel Sorano. sur le thème culte du travail et civisme. culte du travail et civisme. par exemple ci édition boobu parce que lancé woon nañ ko sax ci presse bi ku mel ni lieutenant Asmalik Niang. di gérer circulation bi au niveau de la police. Mhm. à Dakar. Mhm. dafa bokk ci thème boobu looloo tax ñu choisir ko pourquoi cinq heures du matin lay xëy. Mhm. bala moo wàcc minuit. di régler circulation bi. de façon désintéressée ñu dem ba usager yëpp di bëgg sax di fatoo ak moom parce que il est devenu une star. dans le cadre de la circulation. donc ñun modèle yooyu ku nekk nag ci domaine am. ci domaine par rapport ak thème loolu la ñuy par rapport ak bi culte du travail. mooy ku gëm liggéey. bëgg liggéey. fonk liggéey nekk modèle ci liggéey ñu bëgg ndaw yi mel mel ni moom bu ñu nekkee mag. culture mhm. du travail yemu fa waaye dañ ne koo xamante ni dafa bëgg réewam fonk réewam respecté ay institution am di doxalee doxalin bu patriotique donc thème boobu dafay coller toujours ak ki nga xam te dañ koy choisir ci dynamique boobu nañu demoon club Med tey beneen mbir du ki nga xam te dafa fës rek mhm. wala am doole na ñuy primer. am xaalis politicien yi waaw waaw. Hmm. politicien moom mosuñu ko. maanaam ko yori koppar. voilà bi hmm. euh, prix bi du doxee lool parce que looloo tax sa mu crédible. dañuy hmm. tenir trop à cela Amadou Sy mi nekkoon mi nekk ba tey bénévole routier. au niveau du rond-point Anne. que le modèle moo ko ñëkk primé. parce que model la encore une fois il l'a fait de façon désintéressée ñëw na gis na ni circulation bi daal metti na fii. fii daal foog ma jéem a commencé taxaw di réguler circulation bi. Mm. yàlla ubbil ko ci mu dem ba oto yi jaar foofu noonu yëpp. Mm. dañ ko xam. Mm. donc ku mel noonu. dafa am solo ñu ràññee ko gis ni bu leen toog rek di xaar état wala mairie. Mm-hmm. waaye fexe leen ba defal dara seen gox. fexe leen ba defal dara seen réew. Mm-hmm. ci biir ñi ngi liggéey am na ay nit ñoo xamante ni ñi ngi ci. fin fond du Sénégal. kenn xamu leen kenn xamu leen. club model fësal leen. ñu ràññee leen ngir yeneen sénégalais yi mel ni ñoom. loolooy objectif wu prix citoyen moderne. prix citoyen euh, kon ren dina am mais est-ce que tamit jéemoo leen euh, comment dirais-je ràññee wala jox prix citoyen modèle comme policier boobu ñuy faral di wax amul yaakaar. un mhm. policier incorruptible. ci mhm. kaw tali bi. Mhm. Euh, ba nga xamante ni souvent dañ koy citer en exemple est-ce que tamit ñu ni mel di nga leen di bàyyi xel. souvent bien sûr bien sûr bien sûr dañ leen di leen di bàyyi xel bu baax a baax. ku mel ni Asmalik Niang bu ñu ko primé primé nañu police nationale yëpp. amul Dakar itam jot na ay eh, prix yu bëri yoo xamante ne jox nañ ko ko delloo ko njukkal parce que dafay wane ay valeur mhm. dem nañu ñun daawaati jéeg avant Covid bi. Mhm. primé nañ primé nañu colonel Cheikh Tine. Mhm. brigade nationale des sapeurs pompiers. à travers lui dañu rendre un vibrant hommage à tous les sapeurs pompiers ndaxte ñoom it dañuy def liggéey bu mucc ayib ci réew mi ku dem ba ni sauver ou xam nga ni ah, kooku vrai mais mais sapeur pompier gars yi waxuñ loolu de Ibrahima Khalil Niang ah ah yow sapeur bu lakk di am balaa ñoo ñëw foofu jeex waaw xam nga nax xam nga nax loolu moom gars yi dañ ah, loolu du ci ànd ah moom damay nekk avocat sapeur pompier yi xam nga li tax loolu yow xam nga lu tax waaw 18 moom da ko woote ba ba sa kër lakk ba jeex ñu doog nga yegg lu tax dafa mm. am euh, dafa am ay facteur mm. facteur bi si ñëkk mooy ñëpp xam nañu embouteillage man léegi daf may jaaxal da nekk si embouteillage ambulance di di daw teg gyrophare am mais nit ñi duñ ko may mu jàll embouteillage su dakaar benn ñaareel ba itam dafa am ay nit ñoo xamante ni ay anti nañu dañuy doon woote dix-huit nekkate c'est de fausses mhm. alertes. Mhm. loolu dafay dafay dafay dafay jouer lu bëri loolu citoyens yi foog ñu conscience. loolu encore un problème de civisme. et de citoyenneté. bu ci leneen doolee ko mooy itam ñëpp xam nañ ni moyens yi fit bi mi ngi fi mais moyens yi bëriwul mm. dañuy gën a ñaan autorités yi ñu gën a dooleel sapeur pompier et tous les corps ñu gën leen dooleel ngir ñu gën a mën a def seen liggéey ci askan wi mm. waaye boo demee buntu hôpital principal toog urgence mm. gis sapeur pompier yi deux heures du matin trois heures du matin quatre heures du ni ñuy génnee di daw indi nit ki nga xam ni vraiment ñi ay jàmbaar nañu Mm. xëy na nax war na leen dooleel. Mm. ci wàllu moyen. Ah, ah, gars yi médecin après la mort lañ leen di wooyee ci wàllu équipement. <laughs> mais daal man gëm naa ni. ñi ngi mm. def liggéey bu ama amam solo te nañ leen gën a encouragé. nañ leen gën a dooleel loolu it c'est important c'est-à-dire Sénégal il faut que ñi nga xam ne dañu nekk ci yoon. Mm-hmm. di liggéeyal réew mi. Mm-hmm. il faut ñu leen di gën a encouragé. il faut que ñu leen di gën a dooleel les capitaines d'industrie. ñi créer ay entreprises créer ay emplois ce sont nos tey jii boo demee États-Unis Mark Zuckerberg wala keneen ak keneen donc c'est des c'est des modèles il faut que ñu leen di gën a gën a dooleel il faut mm. qu'on soit positif mm-hmm. c'est important waaw di positiver li naan positive attitude mais souvent négativité bi dafa koy dafay dominer trop mm. loolu et je pense que du encourager nit ñi prix citoyen modèle 2021 kan la waaw xam nga kan ci 2021 waaw xam nga nag loolu Euh, parce que ñoom euh, nu mu tuddati jury bi. Hmm. def ci am benn discrétion. bu muy def avant prix bi avant prix bi di ñëw. Hmm. bon bu ñu demee ba quelques semaines daañu publier liste. bi nga xamante ni ñoom ñooy citoyen modèle yi aw non tri bi kenn presque saye sax mm. ay benn ñaari réglage rek moom moo ci des mm. mais bu buñ ca juble incha allah daañu joxe liste définitive voilà ñu gis ni tamit peut-être euh, am nga ay études yoo def ci wàllum tourisme ñu mm. laaj la mm-hmm. euh, li nga xamante ni mooy importance su euh, tourisme fii ci mm-hmm. réewu Sénégal bala ñuy ñëw ci jafe-jafe yi nga xamante ni tourisme am na ko ak Covid 19 bi ak naka lañ ko mën a relancer encore waaw xam nga tourisme moom mooy deuxième secteur pourvoyeur de devises. Mm -hmm. euh, tourisme Sénégal def ci ama ama ama ama am am solo. Mm-hmm. Euh, ci réew mi parce que euh, tubaab yi. Mm-hmm. bu ñuy jógee bitim réew. di ñëw ci biir réew mi dinañu mën a visiter suñu ay sites touristiques Sénégal yàlla def na am nañu ay potentialité tourisme. di ci mel ni kii les chutes de dindi felo loolu ñëpp xam nañ ko euh, Tambacounda boo fa demee euh, parc Niokolo-Koba mm-hmm. ak itam boo demee au niveau de Kédougou les pays les pays Bassari les les Bédik parce que man am naa occasion liggéey Tambacounda mm-hmm. vers les années 2008 donc euh, Sénégal am na ay merveilles touristiques mm-hmm. yu bëri bëri bëri bëri et je pense que itam état bi ñi ngi ciy def liggéey bu ama ama ama ama am solo mais dafay dafay gën a dee. Euh, waaw non ah. ma ma ma ñëw xam nga li hmm. tax muy loolu situation boobu di am. Hmm. li ma gëm man. et loolu c'est une conviction hmm. personnelle man en tant que en tant que professionnel et tout nañu compter ci ñun. c'est-à-dire il est temps que ñuy def li ñuy naan tourisme patriotique. tourisme patriotique. mooy tourisme intérieur. c'est-à-dire. boo toogee ba jël say congé nga ànd ak sa njaboot dem à l'intérieur du pays dangay gis souvent euh, ci Facebook kuy photo wane Tour ci ginnaaw mhm. wane statue de la liberté ci ginnaaw mhm. mais non c'est nañu valoriser suñu ay site mhm. touristique nañu valoriser li ñu am li ñu moom c'est important gis naa ni sax léegi gën na di am ngay gis ay kilifa yu bëre ñuy sol ay yëre wolof. Mm. mais in Sénégal. Mm. loolu it dafa am solo am na loo xamante ni costume africain yi voilà du du état. Mm. du gouvernement. mais ñun ñoo ko war a defal suñu bopp. parce que ki dem Paris day wax fépp dama dem Paris dama dem Paris dama dem Paris mais nit ki war na mën a wu. nii dem Kédougou. fa passé sama ay vacances dama dama dem Saint-Louis dama dem Tamba et cetera mais bu loolu it. dafa am ay conditions mooy ñi nga xamante ni dañu nekk ci hôtel yeeg yooyu foog ñu gën a wàññi njëg li mhm. itam mu accessible waaw wàññi njëg li parce que mhm. itam ñëpp xam nañ ni Sénégal xam nga di fi def vacances sa yombul mhm. salaire yi bëriwul donc il faut que itam ñiy offrir diggante restaurant diggante hôtel ñu tenir compte ci pouvoir d'achat bu Sénégal wàññi njëg li pour sénégal yi c'est important à côté de ça également ñu fexe ba suñu espace yi ñu defar ko mu convivial mu rafet. Mhm. hôteliers yi macha allah na boo duggee biir Sénégal visiter tu as l'impression que des fois yaa ngi ci ay hôtel yoo xamante ne ay hôtelu bitim réew la. Mhm. nit ñaa ngi góogóorlu bu baax te gis nañ ni avec Covid bi le président de la République ak plan de résilience bi mu mettre en place. Mhm. le ministre du tourisme et des transports aériens di ko di ko di ko appliquer avec force Covid 19 jàppale nañu hôteliers yeeg agence de voyage yeeg yooyu ñi nga am yaakaar. ñi ngi am yaakaar ni avec Covid bi ce sera bientôt un mauvais souvenir mais yëf yi bu ubbiwaatee au lieu que ku nekk di valoriser wu ni dem naa bitim réew ne ñu toog ci biir réew mi. Mm. visiter suñu ay sites touristiques ndaxte tourisme. Mm. dafa nekk un secteur transversal. Mm. li tax mu transversal mooy nit ki bu demee Saly wala Île du Saloum séjourné ci benn hôtel dina génn guddi gi doxantu dina jënd pomme dina jënd orange. dina jënd euh, gerte ñëpp ciy am. donc looloo waral mu nekk secteur boo xamante ni dañ ko war a gëm fonk ko fexe ba mu gën a développer suñu économie. mais mais naka la ñuy def parce que gis nañ ni destination Sénégal bi ñu bari euh, dañ ko bàyyi léegi Maroc la ñuy gën a dem ko naka la ñu mën a def pour euh, tubaab yi jógee bitim réew gën a euh, ñëwaat ci destination Sénégal parce que loolu la gars yi wax. waaw xam nga itam am na loo xamante ni ñu bari dañuy wax destination bi dafa cher. Mm-hmm. lool moom c'est une réalité destination bi dafa dafa dafa cher moo tax il faut que ñu gën a xoolaat. Mm-hmm. ni les billets d'avion taxe bi mm-hmm. taxe yi dafa taxe yi dafa bëri dafa bëri sur les d'avion yooyu yëpp état bi foog mu gën cee góorgóorlu bu baax a baax a baax mm-hmm. hôtel yi itam seen prix dafa cher transport bi dafa cher donc yooyu yëpp foog ñu jéem a xool nu ñuy gën a wàññee njëg li ngir ñëpp mën si jot parce que concurrence dafa am mm-hmm. nit ki day xool si internet mm-hmm. fii bu chere mu dem ci benn mu dem ci mu dem ci mu dem ci beneen réew mm-hmm. mais à côté de loolu am na lu may gis loo xamante ni agent sénégalaise de promotion touristique mi ngi koy liggéey muy lan te mu def te mu nekk lu am solo mooy taamu Sénégal am na benn euh, single boo xam te ne gis naa ko ak ay artist yu bëri di way Sénégal gis naa ku mel ni benn benn benn spot publicitaire boo xam ne Gorgui Sy Dieng mhm. def na ko mhm. international la mhm. donc je pense que genre yooyu dina gën a vendre destination Sénégal parce que destination Sénégal ñan ñoo ko mën a jaay ñu si ëpp mooy ñi nga xamante ni dañu siw am aura à l'international gis nga Youssou ndu avec Bercy à chaque fois da doon sol vert jaune rouge di wax ci Sénégal et cetera Baaba Maal il fait un la même chose j'ai vu nag benn boo xam te ne ASPT da ko réaliser avec des artistes mhm. pour ñu visiter mhm. la destination Sénégal je pense que loolu dafa ama ama am solo à côté de cela aussi mhm. y a des salons y a des salons de tourisme yuy am à l'étranger je pense que agence sénégalaise de promotion touristique mi ngi dafay dem sax dafay dafay dem dafay dem dans les salons mais je pense bien que vraiment dynamique bi file quelques années tourisme dina gën amaat doole Sénégal parce que loolu laa man en tant que professionnel gis naa ni président de la République gëm na ko mhm. gëm na secteur tourisme bi te am na ay jéego yoo xamante ne ñi ngi ko ci dox xanaa APR nga bokk yow non non non en fait je parle. <laughs> dama gis ngay xalamal nguur gi li ñu def ci lii li ñu def ci lii. Euh, non xam nga alors que nit ñi la contraire la ñu gis parce que dañu gis ni tourisme bi dafa dee carrément. Euh. et puis Covid 19 bi dafa ñëw euh, yóbbu ko à terre. non c' est vrai que man damay man damay politique nëbbu ma ko. Mhm. damay damay politique. Mhm. maa ngi bokk LDR Yeesal. Mhm. avec le président Modou Diagne Fada. mais loolu domaine politique la. su may intervenir en tant que professionnel wala dans le cadre général mm-hmm. damay fexe def de telle sorte que du ma def un discours vraiment politique. mais parfois politique bi dafay ñëw laxasu si non non non non non non mm. non non non non ma moi moi moi je fonctionne pas comme ça cest fi nga war a politiquer politique fa defendre ko avec des arguments concret mais itam au delà de la politique yow en tant que professionnel bu ñu la laajee waxal ak sa aqulaay taala mais tourisme sexuel bi parce que nee nañ gars yi nee nañ li fi am Sénégal mooy tourisme sexuel yow tamit sànq wax nga sax nañu développer le tourisme patriotique mu nekk lu am solo euh, yow lan nga gisee ñiy wax ni tourisme bi am Sénégal c'est juste un tourisme sexuel ñëw bon. du temps voilà affaire yooyu rek moom moo am Sénégal man ban loolu gëwuma ko xam euh, Mm-hmm. dafa am ñoo xamante ni dañuy ñëw ngir xam Afrique xam Sénégal parce que gis nañu ni jaay nañu destination Sénégal dans les salon mmh. de tourisme internationaux gis nañu ci internet bi gis nañu ceebu jën mm-hmm. sénégalais bi mm-hmm. gis nañu Kédougou gis nañu Tamba gis nañu Mbour et cetera dañuy gis yooyu noonu yëpp ah, dañuy bëgg ñëw Sénégal pour découvrir li ñuy waxee happy enjoy loolu la def carrément am na keneen koo xamante ni peut-être dafay ñëw ngir d'autres fin mais ay nit yu ko def ça ne va pas dire que tourisme sexuel dafa développer Sénégal man loolu laay wax toujours c'est-à-dire il faut que il faut que ñu positif ñu bañ a c'est-à-dire da ngay gis un cas isole ab nit bu jógee bitim réew xëy na ay naka noonu moo ko tax a jóg mu ñëw def si ko fenn ñu jàpp ko ñu ni tourisme sexuel moom moo am Sénégal nañu éviter di généraliser parce que booy xool mm. les les statistiques da ngay gis ay flux yu bëri yu jóge bitim réew di ñëw li leen intéressé dem ci plage bi boo duggee saison touristique bi bu ubbeekoo booy daw ci àll bi mais da ngay tasanteeg ay tubaab yu bëri yu jóge bitim réew ñëw di visiter suñu ay sites touristiques maintenant benn wala ñaar wala ñett wala ñeent xëj na ñoo xamante ni yëf yi naka sudul noonu moo leen tax a jóg je crois que du looloo war a tax ñu mën a généraliser euh, mais réciprocité des visas yow d'accord nga si képp koo xamante ni euh, sénégale bi fu muy dem ñu laaj ko visa euh, kooku tamit buy dugg ci réew mi ñu laaj ko visa ah. est-ce que loolu bu ñu ko defee tourisme bi du gën a suux waaw bon mais man li ma ciy wax toujours rek mooy état bi nañu gën di nañu gën di def ay concertation relation toujours avec les acteurs c'est vrai que réciprocité boobu am na solo trop aussi parce que façon yi booy waxee di itam ah li ngeen may bañal man lool laa leen di bañal c'est important mm-hmm. mais sur le plan économique sur le plan touristique en tant que professionnel yi loolu du leen arranger mm-hmm. donc nañuy gën toujours bu ñu jël ay décisions au niveau du gouvernement nañu concerté wu avec tous les acteurs. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission euh, sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Ibrahima Khalil Niang nekk président euh, bu club modèle beneen seen domaine d' activité ngeen koy amal mu occupé actualité bi di maanaam xale yi nga xamante ni dañuy des ci géej bi ci jamonoy tàngoor bi la ci jamonoy vacances yi la ban analyse nga si def nga gis ni week-end presque dix. xale ñoom ñoo disparaître ci géej gi mu nekk lu doy waax bilan macabre boo xamante ni jot na am te demaguñu fenn. dëgg la jërëjëf Kumba vraiment sujet bu. Mm. sensible la te bu metti la également euh, di jaale d'abord famille victime yi parce que waajur yooyu am nañu lu leen metti trop trop trop trop trop metti na ba fu metti yam mm. te li tax mu gën a metti da ngay am impression que ah noyade daal c'est normal quoi. Hmm. tout continue waaw lap na lap na c'est normal tout continue benn week benn week-end rek mu am dix décès i statistiques yëpp amaguñu yëpp de façon général mais liñ ci mën a wax. Hmm. quinze mai ba juin am na plus de trente xale yu ñàkk seen bakkan. Hmm. quinze mai ba juin. mois yooyu am plus de trente xale yu ñàkk seen bakkan dafa ëpp. ci géej gi ci géej gi dafa ëpp. bon club modèle chaque année. Mhm. dañ doon def campagne anti ñu ànd ceeg waa DPC ministère de l'intérieur dem ci plage yi sensibiliser joxe ay flyers fekk fa xale yi waxanteeg parent yi def ay ak conseil de quartier yeeg yooyu. bon depuis ans ñu siy ànd ak l'association des maîtres nageurs. Mhm. et sauveteurs. donc euh, di nuyu aussi le président Ibrahima Fall et toute l'équipe toute l' ñoom Moussa ak ñëpp ñu àndandoo di dem ci plage yi di sensibiliser associer les maîtres nageurs mm-hmm. parce que gëm nañ ne mm-hmm. ñun club modèle dañoo am suñu suñu volonté mais lu nekk aussi dafa am solo boo nekkee ci combat mm-hmm. nga ànd ci professionnel ba professionnel bi mooy kan mooy les maîtres nageurs dañuy ànd ak ñoom di lëkkaloo ak ñoom di xàccandoo di dóorandoo mais ren nag dafa ëpp Mm. parce que en réalité école te jógul mm-hmm. te plage yi dafay fees li waral situation boobu mooy xam nga daaw y la contexte de la covid 19 ñu amul accès ci plage mm. amul rassemblement y la police la gendarmerie et tout donc xale yi dafa mel dañ leen tënkoon mm-hmm. ren ñu ñëw après koor gi juste mm-hmm. tàngaay bi commencé dugg donc plage daa daal di fees ñu gis nii nañu gën a def beneen stratégie dañ ko gën a yaatal dañuy def benn collectif. Mhm. collectif bu mag boo xamante ni. Mhm. club modèle mi ngi ci. Mhm. ak l' association des maîtres nageurs. ñu ànd ci ak waa Malika surf. ànd si ak waa Doxandéem. ànd ci ak waa Malika d' abord. ànd ci ak waa banlieue banlieue ak la paix dans le monde. mu nekk ay yeneen association parce que benn lu kenn def ñaaral ko ko dàq. ñu nekk benn kuréel takk benn collectif bu ñuy tuddee ànd xeex lapp. li ñuy jublu ci collectif boobu mooy am na benn conférence de presse bu mag bu ñu defoon plage BCEAO mm-hmm. birki démb woo presse nationale bi yëpp wax leen situation bi mi ngi nii il faut que na autorité yi ñu jël ay dispositions yu concrètes d'abord mm-hmm. yu rapide et ñu fexe ba déwén duñ fi toogaat nan dañuy def ay campagne anti-noyade yooyu parce que am na ay mesures yu fort mm-hmm. ci mesures yu lan ngeen suggéré mesures yu yooyu mesures yu fortes yooyu dañ ci jël d'abord bi si ñëkk dañuy ñaan le président de la république son excellence Macky Sall mu def conseil présidentiel sur la problématique des noyades avec tous les acteurs parce que plage yi lan mooy paradoxe bi dafa am ay plage yoo xamante ni dañ ko autorisé à la mm. foofu nit mën na fa dem mm. am ay plage yoo xamante ni c'est interdit mais terewuñu ku fa dem toog ci tefes bi mm. li ñu tere mooy sangu bi mm-hmm. mais plage yooyu amul ay maîtres nageurs amul sauveteur parce que ñoom dañu gis ni amul intérêt muy am ay maîtres nageurs d'autant plus que dañ fa tere ku fa fëy. Hmm. ku fa ku fa sangu. Hmm. n'est-ce pas. alors que foofu la ñu war a nekk. foofu la war a nekk ndax xale yi dañuy dem du ñu toog ci tefes bi da ngay toog rek benn ñaar ñett xale dugg ñeneen ñëpp topp leen donc il est temps parce que soit. ñu jël benn mesure transitoire mm-hmm. mooy bu kenn toogate ci plage yooyu mm-hmm. police ak gendarme yi taxaw fa mais loolu mesure transitoire lay nekk parce que mm-hmm. xale yi mënoo leen tere ñu dem géej li ñuy mën a def mooy fexe ba plage yooyu mu am ay maître nageur yu fa nekk ñoo ay sauveteur ay surveillant de plage bépp xale buy dugg ci géej gi mu ñu mën ko koo tere waaye plage yi ñuy autorisé plage yi ñu autorisé mhm. également. foofu la maître nageur yi di nekk maintenant mais maître nageur seen effectif doyul. Mhm. parce que da ngay gis benn plage bu mag boo xamante ni lu bat deux cent xale. ñu ngi fa nga gis fa deux maîtres nageurs. mais ñooñu mun ñu surveiller donc foog ñu gën a recruter ay maîtres benn ñaareel ba ñu jox leen ay jumtukaay. jumtukaay yu bëri am na si ay plage yoo xamante ni maître nageur yi amuñu sa boîte à pharmacie. Mhm. amuñu sa planche de sauvetage. mais loolu dafa doy waar. Mm-hmm. donc moo tax ñuy ñaan conseil présidentiel bi dina mën a régler cest à il faut pas rek noyaat yi bëri na ñu jël ay mesures nañu jël ay mesures structurelles. Mm-hmm. yoo xamante ni. des mesures de base. Mm-hmm. ay de mesures de base yoo xamante ni filig deux trois ans yëf dina wàññeeku ba pare ndax boole ci ak sensibilisation bu mat sëkk. te li may wax ci loolu. à côté de mesures yi nga xamante ni loolu moom état rek moo ko mën a def gouvernement rek moo ko mën a def damay lu wax naa ko keroog ñaari yëf. Mhm. bi bi ci njëkk mooy presse nationale bi yëpp def ci taxaw mu daal di nekk une actualité. Mhm. et actualité la. presse bi yëpp damay gën a encourager suñu mbokku journalistes ñeen ñëpp di leen féliciter. Mhm. ci liggéey bu rafet bi ngeen ci def. toutes les rédactions en non parlé def nañ ci ay débat yu bëri. ma gis ni itam. son excellence Macky Sall def na ci tweet. Hmm. di nakarlu loolu noonu nga xamante ni am na. Hmm. donc gëm nañ ni y a boo xamante ni mais est-ce que ciy wax nii rek et puis ça passe. non nee c'est intolérable après ça euh, passe xale yi continuer di dee ci géej gi. non non non en fait man fi ma doon waxee. fi may hmm. waxee mooy. lu mel noonu am na. ñu wax ci président ci boppam waa mooy la première autorité du pays. Mm mettitlu na ko nakkarlu na ko te nee na des mesures fortes seront prises mhm. nest leneen li ci des mooy association yu mel ni club modèle maître nageurs yi ñun fexe nañu ba taxawal collectif collectif bi daañu rencontrer ci incha allah toutes les autorités mhm. parce que am nañu ay idée def nañu mel mémorandum mhm. mémorandum boo xamante ni am nañ ci ay solution yu bëre yoo xamante ni jox leen ko jox leen ko autorité yi donc loolu noonu yaakaar na ni booleeg presse bi di ci wax dinañu fexe ba xale bu nekk sax bu buggee dem géej bu déggee lañ ciy wax dana ragal cette cette dissuasion mhm. elle importante mhm. et si dynamique boobu it moi je tout le temps te da ngeen di dem seen activité ci plage yi ñu euh, tere ak yi ñu terewul yëpp nañuy dem di sensibiliser les jeunes mhm. en même temps di rencontrer les autorités pour que ndax dafa am loo xam te ni club modèle mënu ko association maître nageur mënu ko gouvernement moo ko mën moo tax ñuy à partir de lundi au niveau de toutes les autorités pour waxtaan ak ñoom sur ces cas de noyade là mais yan ñooy plage interdite surtout à Dakar fi nga xamante ni euh, xale yi fa la ñuy gën a euh, deewee surtout ci période bi comme ça nga wax ko ñu xam ko. tout à fait xam naa ne dinaa si dinaa si dellu. si hmm. ci liste plage yu. interdite yi parce que hmm. noté woon nañ ko. parce parce que doon nañ wax ni tamit plage yi dañ ko privatiser. waaw tout à fait tout privatisation des plage tax na xale yi di dem ci les plages interdites parce que nee nga xale yi kenn mënu leen teree dem géej. Mhm. donc bu fekkee euh, yenn plage yi dañ ko privatiser. Mhm. ñu fay dem am nañ maître nageur et tout. Mhm. plage yi nga xamante ni dañu ko tere amul maître nageur. amul police amul gendarmerie. amul dara moo tax la bi di gën a bari. voilà privatisation bi loo si wax. waa loolu itam loolu dañ ci war dañ ci war wax lu bu baax a baax a baax. mooy privatisation. plage yi mhm. xam nga su fekkantee ni mhm. su fekkantee ni dafa am ay privé yoo xamante ni dañu ñëw ci benn espace daal di ko tëj ni fii nii da ngay fay te xam na ni euh, Sénégal réew la boo xamante ni doole bi bëriwul mhm. donc loolu aussi état rek moo tax ma ni ñun proposer le conseil présidentiel parce que conseil présidentiel dina mën a wax ci contour yëpp. Hmm. yi nga xamante ni. suñ géej gi yëpp nañ ko euh, rebord bi. waaw yooyu yu mu ci mënti doon daal. Hmm. conseil présidentiel bi dina mën a jël contour yëpp jël pris jël en euh, en charge. Hmm. la question des noyades. plage autorisée yi plage non autorisée yi. maîtres nageurs yi surveillants yi sauveteurs yi euh, piscine yi nga xamante ni dañ ko def itam. plage privée yi mhm. yooyu yëpp dina mën am de large concertation mhm. parce que itam plage privé yooyu bu ñu wàññee wàññee njëkk li xëy na nit ci daañu fa mën a dem donc moo tax ñu ni du problème boo xam te ne dañ koy régler va à la va vite mhm. dafa laaj ay concertation yu mag a mag a mag yoo xamante daan ko ci amal pour que déwén ma bañ a ñëwaat fii naan ñi ngi def campagne de sensibilisation maintenant campagne de sensibilisation bi dafay continuer di wéy campagne de sensibilisation dafay continuer di wëy dañ koy def ci dañ koy def ci période bi yëpp mhm. waaye loolu dafa war a ànd ak mesure yi nga xamante ni gouvernement bi ñu ngi koy war a jël te mhm. vraiment ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax a baax mhm. ayca kon maître nageur bi exactement Ibrahima Khalil kan moo koy recruter état bi la euh, ki ki ki gérer plage bi comment ça se passe souvent ni ñuy recruter les maîtres nageurs waa xam nga maître nageur yi Euh, ñi nga xamante ni am na si ñoo xamante ni ville de dakaar moo leen ni recruter am na si ñoo xamante ni ce sont les mairies parce que mairie yi également dañ ci am <laughs> dañ ci am part de responsabilité mmh. yi dañ ci am part de responsabilité ñoom seen bopp dañu war a xool selon ñi nga xam ne dañuy nekk dans une zone boo xamante ni dafa am plage maître nageur yi nga xamante ni war na leen mën a recruter am effectif mm-hmm. mais le problème qui se pose mooy tey jii am na presque lu toll ci plus de deux cent maîtres nageurs ñu ngi chômé. Mhm. recruter wuñ leen te jàng nañ am nañu seen lépp mën nañ ko. Mhm. donc loolu itam dafa laaj taxaw seetlu ñu xool maîtres nageurs yi. naka nañuy fexe ba recruter leen surtout les mairies yi nga xamante ni. Mhm. dañu nekk dans des zones yoo xam dafa am géej. loolu c'est important mais toujours est-il que li ma ciy wax li liñ ciy wax nii yëpp baax na. mais tant que gouvernement bi jëlul ay mesures yu fort avec les collectivités locales parce que mm-hmm. collectivités locales dañu am un rôle déterminant à jouer dans ce processus moo tax ñu bëgg un conseil présidentiel les sapeurs-pompiers tous les acteurs toog mm-hmm. ñëw toog maître nageur yi ñoom ñu nekk ay professionnels mm-hmm. joxe ay propositions association yu mel ni club modèle joxe ay propositions sapeurs-pompiers yi waa DPC direction de la protection civile parce que ñoom it ils ont un rôle à jouer dans ce processus. Mhm. au niveau des plages ñëpp toog ñu xool nan nañuy fexe ba. Mhm. noyade wàññeeku pendant la période estivale. Mhm. te li may dolli ci loolu it keroog ñu ngi koy wax dañuy ñaan suñu vedette yi. parce que Sénégal yàlla def na am na ay star ci wàllu ci wàllu musique. ak ci wàllu sport. nañu sensibiliser. nañuy def ay capsule mm. sensibiliser xale yi. si surtout si réseaux sociaux yi. parce que mm. am na lu bëri loo xam te ni ñi ngi koy gis si réseaux sociaux yi te amul njëriñ. Mm-hmm. lii moom mooy njëriñ li. Mm-hmm. xale yi ñi ngi dem ñi ngi ñàkk seen bakkan te li ci gën a metti li ci gën a metti encore une fois ay élèves nañu. Mm-hmm. élèves ku ni élève wax ni avenir bu Sénégal waaw mais donc ñu mel noonu wax dëgg fa yàlla artistes yi sportifs yi nañu def ay capsules au niveau des réseaux sociaux ça ne beaucoup de mooy mm. def capsule une minute. Mm. deux minutes. sensibiliser xale yi. Mm. ci ñu moytu. les plages interdites voilà. voilà euh, temps bi sax bareetul amoon nañ yeneen thèmes yi ñu bëgg a waxtaanee mm-hmm. mais juste une minute deux minutes moo ñu dese. Mm-hmm. Euh, doon nañ dégg ñuy wax ni euh, seen prix citoyen modèle bi dafa am usurpation. Mm-hmm. exactement mën nga ñu ko expliquer ñu xam. bon non loolu daal. bugguma ci. sori trop parce que lu lu passé la. Euh, non non en fait lu passé la xam nga. prix euh, citoyen modèle ñëpp xam ne ñii club modèle moo ko moom. Mhm. club modèle moo ko dañ ko dem au niveau depuis deux mille vingt quatre décembre l'an deux mille douze nañu dem. au niveau du BSDA boobu nekkagul woon SODAV. Mhm. ñu enregistré ko déclaré ko avec un numéro. waaw donc euh, daal. Hmm. waaw nañ ci yem foofu rek. <laughs> foofu nga yem léegi juste ñu laaj la ci euh, violence politique bi. Mhm. Ah, nekk na lu doy waar ça revient ça revient. Mhm. ak euh, phénomène wu nervi yow mhm. lan mooy si sa gis-gis. waaw waaw li ma ci. politiciens yi ak nervi yi. gàddu ay jaasi ainsi de suite. ban jàng nga ci am juste une deux minutes ñu tàggatoo. waaw en fait li may wax ci ci loolu. mooy violence. fu mu mënti jóge ñun dañ koy condamné mhm. violence amul njëriñ man dama gëm ni ku wóolu boppam dëgg ça doit être la force de l'argument et non l'argument de la force donc ñi nga xam te ni dañoo sekk politique bi bu ñu nangu parce que man dama koy wax toujours mhm. toujours et loolu sama conviction profonde la pour man les hommes politiques ils ont du mérite parce que c'est des gens yoo xamante ni. ñoom tamit ay modèle la ñu war a doon. mais bien sûr Exactement. c'est des gens yoo xamante ni. <laughs> amuñu seen temps famille. Mhm. dañuy sacrifier seen famille. matin midi soir ñu ngi ci tourner ñi ngi def et cetera région yi ñi ngi waxtaan ak nit ñi donc ñoom ay modèle nañu. war a doon normalement. Mmh. donc bu ñu nangu bu ñu nangu. Mhm. ay affaire ay ay nerveux affaire yu demee noonu di dugg. di xajamal politique bi homme politique bu nekk ndax sañ na am sécurité waaye sécurité yooyu nen leen tàggat ci li nga xamante ni mm. moom ni ñu war a doxalee ak nit ki. Mm. parce que am na loo xamante ni gis nañ ko ci ay pays africains yu bëri. te ci noonu la commencé. Mm. Sénégal ñu nangu loolu encore une fois. te man booy cette violence bi. duma ko wax ci politique rek. c'est devenu national même au niveau de l'université mais dafa jaaduwul foofu la gën a rawati dafa dafa jaaduwul ay élection amicale ay élection amicale ñu ñëw di di rayante di toj ay restaurant mais pour lan il est grand temps dëkk bi dafa war a am li ñuy tuddee ndëpp national respecté tuñu institution lu waay neex wax le maire lu waay neex wax la ministre lu waay neex wax président de la république mais nañu ressaisir dëkk bi encore une fois Sénégal li mës a nekk charmam hmm. mooy pays de la teranga. voilà ñu bàyyi la Ibrahima Khalil Niang ñu ngi may siñaale waxtu bi jeex na nga tàggatoo ak auditeurs yi amoon na nag yeneen ponk yu ñu bëggoon waxtaanee mais heure bi moo ñu xoj. dëgg la jërëjëf hmm. jërëjëf Kumba vraiment kontaan naa lool ci hmm. émission bi. encore ñu ñu jàkkaarloo. am nañ ci solo trop di leen gërëm di leen sant di gërëm aussi l'équipe de mi FM. Hmm. ci liggéey bu rafet bi ngeen di def dans le hmm. paysage médiatique sénégalais jërë ngeen jëf. voilà ñu ngi lay remercier bu baax a baax Ibrahima Khalil Niang nekk président bu club modèle ñu ngi koy remercier bu baax ci disponibilité am di remercier Mamadou Diaw Diallo ah, bi nekkoon ci cabine technique bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi ah, de 10h à 11h kon samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi Euh, point com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf.